mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullah mbokk yi fa ñu maa yóbbanteeti ay laaj waa marché Ocass ñooy laaj ndax dañu leen a fàtte am dañu cee bokkul waaw marché Ocass gannaaw bu mu tàkkee jëppët guddik fukki fan ak juróom benn ci weeru novembre dàpp fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru novembre di juróom-ñaari weer mbokk yi góornóor keroog ba nga ñëwee ci sëriñ Muntaxa Mbàkke yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér seen jataay boobu ak engagement yi nga jëloon te mu rafetlu ko ànd ak yéen ci bépp matukaay bu ngeen jël saafara ci jafe-jafe ji nga xam ne ni am na ci marché bi mbokk yi gouverneur waa o Ocass ñooy laaj ndax danga nga leen a fàtte wala danga nga leen a talatul euh, maire dina woote ñun ñëpp dañ koy woote bi Touba lay doon bu defee man ma ñëw ak service yi ak sapeur pompier ñun ñëpp ñu jéem a seet nu ñuy def ba organiser waat marché bi keroog bi marché bi tàkkee kilifa gune ñëw na fa mbokk yi yii saa sax ñu ànd ak caméra waa marché Ocass di laaj mbokk yi yéen waa protection civile yi nga xam ne ñëw ngeen ci marché bi ba waxoon centre commercial yi ne dakkal leen seenub liggéey ndax bâtiment yi waratul dafa mandi ak ndox bu leen ko sancaat mbokk yi te bu yàgg ñu yeesalaat seeni place dooraat liggéey ba mbokk yi waaw ndax da ngeen leen a fàtte am da ngeen leen a talatul mbokk yi ana waa Senelec doon nañ leen tuumal ci branchement yi fa amoon ba mu indi jéye ji mbokk yi ana kilifa Senelec ba ñu fa ñëwee matukaay yi nga xam ne waxoon nañu dañu koy jël fan lañ ci toll gouverneur ndaje mi nga xam ne moom nga jiite woon ci commune bi gannaaw bu marché bi tàkkee ànd ak commerçant yi waa assise ambulant yi ak waa Touba ca kanam ci teewaayu maire bu commune bu Touba ak conseil municipal bi mbokk yi ana matukaay yi nga xam ne moom ngeen jëloon ci jataay boobu nga xam ne am na léegi lu toll ci juróomi weer mbokk yi waaw plan bi nga xam ne waa Touba ca kanam indi woon nañ ko ci mbedd mu yaatu mi di ñaar fukki mètre ak juróom ñett mën nañ koo yi gis ci seen bopp ambulants yi gis ci seen bopp ba oto yi mën a jaar ci tali di dem di dikk ñëpp rafetlu ko waaw fu loolu mujjee waaw yéen waa mairie bu Touba keroog ba nga ñëwee ci marché bi engagement yi ngeen a jëloon da ngeen koo fàtte wala da ngeen koo talatul. léegi nag ci li situation bi ñu ñëpp ñoo ko gisal dafa mel ni jot na ñu xool lan la ñuy def pour marché Ocass mën a nit ñi ñiy jaay mën a am jàmm. ñiy dugg ak génn di jënd mën a am jàmm marché bi nekk une model waaw plan bi nga xam ne ñëpp àndoon nañ déggoo ci ne Touba ca kanam mën nañ koo defar te kenn du ci dugal ñaari dërëm waaw fu ngeen ci toll yéen waa mairie bi ndax yéen a bëggul mu jàll wala ndax da ngeen koo talul bokk yi waa gaar bu ndaw a ngay yuuxu de ñoom it nee nañu ndax dañu leen a fàtte am dañu cee bokkul moo ne daje ngeen fi yéen kilifa yi nga xam ne yéen lañ dénk dëkk bi dem ngeen ca gaar ba wër ngeen ko gis ngeen na mu mel ay cantines yu ñu abandonné ay gone nekk ca di tux di naan di agressé képp ku dëkk ca quartier bi jaaxle lool jël ay engagement waa gaar bi nee nañ ndax da ngeen leen a fàtte am da ngeen leen talatul bokk lu xew ku xam wax ma mbokk yi lu tax bi marché bi tàkkee ba léegi juróom-ñaari weer kenn yéeyatu ci yàbbi mbokk yi ndax lii ñàkk yitte la ñàkk a farlu la wala soofantal la mbokk yi tey la wàllu gën a ay ndax mbooleem lu indi woon jëye ji tey la wàllu gën a ay te kenn jéemu ci lenn mbokk yi te jëloon engagement ci kanamu xalif général des mourides mbokki yi waaw jàpp ngeen ne lii jekk na jàpp ngeen ne lii jaadu na waaw ñi nga xam ne ñoom la ñu dénk marché yi ñu ne ñoo ko yor yoo yaay di mairie yéen waa Garba waa marché Ocass ñoo yóbbante ab laaj ci yéen ndax da ngeen leen a fàtte wala da ngeen leen talatul lan ngeen xalaat ci marché bi anamatukaay ya ngeen waxoon ne moom ngeen di jër ca Garba waaw plan bi nga xam ne muy benn plan bi ñu fi jot a gisugum ba yëf yi amee ak léegi gisuñu fi beneen waaw lu tax ngeen bañ lànk plan bii ne kenn du ko jëfee ndax li mu doon marché bu kenn mënul am 2 pour cent wala cinq pour cent moo tax duma dem te kenn du dem loolu mënta nekk de tànk nag day tàlli sécurité balaa askan wi jël responsabilité mbokk yi sëriñ nag neewoon na nit nag ay kàddu yu démbam méngoog ay jëfu teem booy jàpp jàppal waaye ngoog waaw mbokk yi koo xam ne say kàddu yu démb ak bërki démb ak bërkaati démb lenn méngowu ci ak say jëfu tey ndax kooku ay waxam jar naa dóor sa doom ko xam wax ma ndax da ngeen leen a talatul ndax daf leen yitteelul ndax da ngeen a tële lu xew